mu ne salli rabbi salli rabbi xalifa yu nen gërëm sidi abubakar sëñ babakar la faral xalifa tijaani ñoo góor gi ci foto bi góor gi kéemaan la sëñ babakar la faral xalifa tijaani ñoo tijaani ñoo tijaani ñoo alaaji man sooji alaaji man sooji maam Habib maam Habib maam Tamba bàyyi Seydi Jamil Seydi Jamil bàyyi borom bay Serigne Cheikh Tidiane Serigne Cheikh Tidiane al amin bay bégal ñoo al amin bégal ñoo Tidiane ñëw duma fàttali nga ma defal ma ñoo al amin duma fàttali nga ma defal ma ñoo al amin ana soppe Serigne Abdou al amin bi mu amee fukki at ak juróom benn la ko sëñ Babacar woo ne ko doo ko doon al amin mu tax ma ne ko ba ma demee demee Saalum ba ma demee Saalum ba ma demee Saalum ma ni leen góor gi wàcc na indi fa courant indi fa rangara tabax fa jumaa ja pour daan dem Saalum yóbbu camion mooy sëñ baax birigi kenn teggaay war mbay ki mu doon ko di mooy sëñ baax xalifa ma bay na la ardena te mu doon kooku mooy sëñ Mbàkke xalifa maa bay naa samaawaat te mu doon kooku mooy sëñ Mbàkke xalifa maa bay naa samaawaat te mu doon kooku mooy sëñ Mbàkke akido go yere sen sen ci diine jë yënguwul kooku mooy sëñ ba bëri mi kenn teggaale wal te mu daan kooku mooy sëñ ba xalifa ma bayna la ardi ke mu doon kooku mooy sëñ ba xalifa ma bayna samawat ke mu doon kooku mooy sëñ ba doon nu Mawdo doon nu Cheikh sunu doon kooku mooy sëñ ba kër yor cër akido go yere sen sen ci diina jaay gul kooku mooy sëñ Mbàkke yéen doomi soxna ya kon bu nu sàkkoon ci Mbàkke ana soppi sëñ Babacar Si bu nu sàkkoon ci Mbàkke ana soppi maam Abba Sall bu nu sàkkoon ci Mbàkke bay ku ci sàkkoon ñu dambalo bay ku ci sàkkoon ñu dambalo bay ku ci sàkkoon ñu dambalo bay ku ci sàkkoon ñu dambalo bay ku ci sàkkoon ñu dambalo bay ku ci sàkkoon ñu dambalo

ñoo dem sa yow sama waay ci ñoo tijaani ñëw loxo ca kaw ñoo tijaani ñu ñëw na ci ñoo ana waa ngi ana ñi sant faal ana waa ngi waa ngi yéen lay béggal waa ngi yéen lay béggal tijaani ñëw ana Maodo président ana Maodo président ana Maodo député Sonko na ñëw de ana ci ñëw de Maodo Diop Maodo Diop ambassade nee na ma woy Maodo Diop laa bëgg Tijaan ñu dëgg Tijaan ñu ana soppi mi dund soppi mi dund bari sama ambassade sama waa ji jàmbaar la mi dund ba la bëgg Tijaan ñu loxo ca kaw Tijaan ñu ne Sénégal di ma liggéey dem Mauritanie dimbal liggéey sa bébé du baax mi du ma sama wàllu tijaani ñu ay tijaani ñu mu nekk Sénégal mu nekk Sénégal mi dun fi liggéey mi dun fi liggéey dem Mauritanie dem Mauritanie ma defa ni di na baay mi dun jàpp ma dun tijaani ñu تذكر نيانا ميدون بايا تذكر نيانا يوم يوم تذكر نيانا ميدون بايا تذكر نيانا مدملا Miidun bala miidun bala miidun bala miidun bala Tijaani ñëw Tijaani ñëw ko sopp mu xam ko sopp mu xam ko miidun ba jàmbaar miidun ba ku ko bëgg mu xam ko triche woo triche woo miidun ba yow laay miidun démb fekk na ma ci waaw tijaani ñëw tijaani su oto amul woon su oto amul woon ma dox ñëw ngi ma dox ñëw ngi jaral ngeen ma ko jaral ngeen ma ko ana sa pay mbind ana sa pay mbind ana sa pay Maodo Diop sama jigéen ñi lay bégal sama jigéen ñi lay bégal tijaani ñëw tijaani ñëw jigéeni caat jigéeni caat jigéeni caat jigéeni caat jigéeni caat jigéeni caat ak góori caat góori caat ana xale ja ana soppe ja ana soppe ja soppe ja dina bega dina bega dina bega Tijani Tijani Tijani Serigne Babacar Sy Serigne Babacar Sy turam dafa ne turam dafa ne mooy abul mooy abul abiyu habibu saahibu saahibu wa axu wa axu bu siidun wa bu siidun wa Tijaani ñëw Tijaani ñëw Serigne Babacar Sy Serigne Babacar Sy turam dafa ne turam dafa ne góor gi ndar ndar la wa inna ni xat kunt bi na ëli dari Serigne Babacar Serigne Babacar wa maskani bi Tijaani ñëw Tijaani ñëw Serigne Babacar Sy Serigne Babacar Sy géej la juddoo wa inna ni wa inna قلت من أهل النار ومسكني ومسكني بها لدار بها لدار أنيرا أنيرا تجاني تجاني ñu ana sa péja ana sa péja ana sa péja ana sa péja ana sa péja ana sa péja yéen a bëgg ja yéen a bëgg ja am di jëm ca mbay lay wayal yéen lay wayal ja di jëm ca mbay lay wayal tijaani ñëw tijaani ñëw tijaani ñëw Serigne Babacar Sy Serigne Babacar Sy turam dafa neex turam dafa neex tudd na mbay tudd na mbay tudd na xalifa tudd na xalifa mooy góor gi mooy góor gi mooy sunu maam mooy sunu maam xale yi judd ci gannaaw bay gisana bay bay rono góor tijaani ña tijaani ña tijaani ña mag ñi way nan ko lu ne mag ñi way nan ku ko am am nga yónnal mag ñi way nan ko lu ne sama baay ku fi yaakaar nekk fi yaakaar nekk na wëte gannaaw ñëw bu doon ni ku mu ne salli rabbi salli rabbi xalifa yu ne gërëm Sidi Aboubacar Sëñ Babacar la faral xalifa Tijaani ñëw góor gi ci foto góor gi kéemaan la Sëñ Babacar la faral xalifa Tijaani ñëw Tijaani ñëw Tijaani magi Alaaji Mansoor magi Alaaji Mansoor magi maam Habib magi maam Tamba magi Seydi Jamil magi borom daara ji magi Sëriñ Cheikh Tijaani Sëriñ Cheikh Tijaani Al Amin lay bégal ñëw Al Amin lay bégal ñëw Tijaani ñëw dama fàtte li nga ma defal Al Amin dama fàtte li nga ma defal Al Amin ana soppe Serigne Abdou Amina bi mu amee fukki at ak juróom benn du la ko sëñ Babacar woon ne ko doo ko doon ana Amina mu tax ma ne ko ba ma demee Saalum ba ma demee Saalum ba ma demee Saalum ma ne leen góor gi wàcc noor indi fa courant indi fa rangara tabax fa jumaa def fa daan dem Saalum yóbbu camion ceeb camion ceeb camion dugub camion yóbbaale ay yére jox ko néew di doole Serigne Abdou amul morom duma ko utal morom dem leen ba Tiwaawan lu fa baax moo ko fa defar na jumaa defar hôpital ya defar na gendarmerie defar na gendarmerie defar na raw na baay Serigne Abdou ko feebar mu faj ko tuddee mu tëjal la ñu du mu tuddu mu gerte moo la ñu ngi paasi makka al amina al amina amina amina al amina jug leen màggal amina amina al amina al amina amina amina al amina al amina al aljanna al aljanna al amina al amina ñaanal amina al amina al amina billahi bay sun mustafa amino amino jari al amina al ben bagu medina ben bagu tiwa moy amina iflin ci aflino amino amino al amina amina la pëtëm ne goon bay ba mu jiitu ñoo wala fiitu bay la ko jiitu ñoo wala fiitu bay dafa ànd ay bayam yoo doy góor gi bu jiitu ñu toppatoo ñet ba na jàqe bay ba na tiite bay ba ko waye mo wësi la bay ba na jàqe bay ba na tiite bay ba ko waye ko wësi la bay ba na saage loxo ca kaw ba ñu saage àndandoo bi ànd leen taqaloo gi yàlla na yàlla yàlla xoolal nu bay sañi gëm ñu yokku ko si di bay si lii la tëral na di daan tëbët di fa tël yàlla yàlla dolli sa waa xadara tëbët tëli ko dan di ñaana waa xadara yàlla dotti fay si tëral nit ñi ay doo nay ne ay doo tiina ay doo nëritoon ay doo daalo ay doo loxo joxante leen joxante leen loxo ku nekk kamade joxante leen joxante leen ku nekk kamade yëkkati leen yëkkati leen sa ñaari loxo ca kaw a kaw